يا لا لا لا يا لا لا لا لا لا لا يا لا لا لا يا لا يا لا لا لا لا يا لا لا لا يا لا لا لا لا لا لا يا لا لا لا يا لا يا لا لا لا لا يا لا لا لا يا لا يا لا لا لا يا لا يا لا يا لا يا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ay bismillah bismillah bismillah asalaamaaleykum wa rahmatulah barakaatu mbokk yi man la Mariétou fii ci saveur planétaire macha allah ma fas yéene dellusiwaat tey ak yéen ci kàttanu yàlla di leen ziyaar yu baree bari bari mbokk yi di leen ñaanal yàlla yu àddina ak àllaaxira ni ñu ko fi baaxoo di defee mbokk yi gis ngeen nii suñu yuubu yaaba yi nga xamante ne tàllal nañ ko fii tey ci suñu planche bi comme d'habitude macha allah ba tey ñi ngi ci ndog yi tey mburu faas lañ fas yéene indi pain perdu bu gaaw simple te neex. waaw su ko defee foofa daal di toj ñu làmb ji leneen <laughs> aywa bismillah donc pour suñu pain perdu bi gis nga ni dañuy soxla ay nen donc toj naa fii ñetti nen euh, lii suñu meew la évaporate milk bi laa jël mooy meewu gloria bi ku mu neex mën nga jël meewu ndox bi nekk fi ba moom laa jël lii nii suñu euh, brown sugar la sucre roux moom laa jël kii suñu ay sucre vanilla la kii suñu euh, muscade bu ñu xoos ba pare la macha allah beneen affaire la kii suñu baguette la de sel bien sûr euh, beurre euh, pour très bien rapidement pour la version française euh, ce soir une euh, je vais vous présenter du French toast du pain perdu voilà pain perdu et pour ça on aura besoin d'une baguette, vous voyez. Donc, vous voyez la baguette. On aura besoin des œufs. Là, j'en ai trois, trois œufs. Euh, du lait. Et ce soir, j'ai pris euh, de milk. Du lait évaporé, voilà. Et là, du sucre roux. Là, j'ai trois sachets de sucre, voilà. Et là, on va mettre du muscade, généreusement voilà il faut que ça soit bien muscadé <laughs> bien muscadé Faut ngay de très bien et là une pincée de sel voilà juste pour relever et là j'ai un peu de beurre ici du beurre voilà un tout petit peu avec de l'huile vous voyez pour euh, cuire les pains perdus all tonight inshallah I will be making French toast and the ingredient those are the ingredients that I will need we have here three eggs like whole eggs the yolk and the white everything and we have evaporated evaporated milk uh, we have nutmeg that's the brown powder that you guys are seeing here and a little bit of brown sugar and of course we need a french baguette you know and here we have some uh, uh, canola oil and a little bit of butter to cook our and, and a, a pinch of salt yes little bit of butter to cook the french toast aywa let's go for it aywa très bien machallah mbokk gis ngeen ko ni boole nañ suñu ingrédients yépp ni diko whisk voilà manam yëngal gi pour everything jaxaso bien bon aywa très bien machallah mbokk gis ngeen ko ni suko ko defé ñu daldi dénga mam dag suñu baguette voilà gis ngeen ko ni ku ci nekk yaa xool size bu la neex rek boo buggee yu rëy noo ko buggee rek gis ngeen ko nii voilà naa on découpe le pain aywa très bien macha allah su ko defee bu ñu daggee baguette ba pare ñu tremper ko bañ ko bàyyi nag mu xooju lu yàgg voilà gis nga ko nii daal di teg suñu diwlin voilà taal gaz bi. mu naan ko su ko defee dañ koy squeeze nii tuuti génne excès jus bi ci nekk soog ko saaf. voilà foofa ngay toj. aywa très bien macha allah très bien mbokk donc comme gis ngeen ko gis ngeen ni ñu ko trempé woon léegi dañuy bës nii génne excès bi bër bi duñ ko bàyyi ba mu xam aywa bismillah dal di jël suñu yóbbu yàlla bay teg ci très bien mbokk di leen wax na tey ji suñu pain perdu bi. dama fas yéene dem ba Virginia yekkal ci sama rakk bu jigéen ko koy Suzanne ko koy madame Thioune <laughs> yekkal laa la ci àllaajeem yekkal ci xale yi ñoom ñëpp bàyyiwuma kenn voilà gis ngeen leen nii très bien léegi ñu def ko fa bu ndaw rek bàyyi mu doore doore bu rafet ñu daal di ko tourner beneen côté bi foofa daal di toj merci très bien eh très bien macha allah gis ngeen ko nii su ko defee ñu téye ko di ko tourner ndànk

macha allah bu ko defee nak pour xalé yi <laughs> pour xalé yi sama wujj ak <laughs> sama chéri ah, voilà bu len nexé ku ci nek ñuy trempé di ko ci dip noonu di yey ndank muy wacc di glisser <laughs> ku mu neexit eh, nga saupoudré ko ak sa sucre glace voilà comme vous voulez. ay mbok yi très bien macha allah très bien macha allah wala quwwata illa billah mbokk gis ngeen ni suñu mburu faasa ngi paré na pain perdu. mi ngi nii <laughs> perdu la def ba xalangu <laughs> foofu ngay toj da laa ci xam ñi ngi nii macha allah suñu sirop euh, de fraise moom la ñu maye na la fële. su ko defee allah day nek trompette xalé yi mën nañ ko jël dégg nga maam ko ci may benn petit cuuc parce que dama ko sucrer légèrement légèrement motax defuma ci euh, poudre mo benen sucre ci kaw pour ñu mëna ñam bi yit nan ko fi diko ko fële toj li <laughs> dal la def man fassé ko sama kanam mbokk di len wax vidéo complète ci youtube bi di len ñaan baramu kaw gi sela la wi mu yek baramu suuf gi fente fofu dal di toj merci beaucoup waay aywa bo ndogu